monsieur monsieur Lamine euh, euh, ñi ngi dégg ni waa Yewwi Askan Wi waroon nañ def euh, janno ak way taskatu xabaar yi mm-hmm. ah, waroon àddu ci li nga xam ne jëm ci yenn ci ay actualité yoo xam ni bëggoon nañ ci prononcé wu ci siège bu pur malheureusement mujjul mujjul antu parce que force de l'ordre ñoo leen ko tere ndaxam yéen ngi waroon ngeen bokk ci boobu ci boobu conférence de presse yéen waa taxaw démocratie en général man de vrai nekkatuma en phase avec cette démocratie bi nga xamné ni ñu incarner dans ce pays parce que nit ñi lu défendre ak fi deug né nous devons ko baye xel ñaar même marche pour nous autoriser kay la ñi marche tay démocratie point je peux te répondre mais boo ma indilee concernant Khalifa Ababacar Sall kenn gënu ko doon démocrate parce que looloo ko yóbbu dialogue pour mën a waxtaan ak ñooñu échanger ak ñooñu tous ces problèmes ñu xool naka lañ koy modifier naka li lañ koy changer tous ces lois naka lañ ciy amaate beneen xar-xaru kanam bu bees tey nit pour mu génn marche problème la tey pauvre yi nga xam ne ne ñu ngi ci biir kaso bi ñu ngi leen di acharné di leen teg nattu problème la té nit ku wéx mëna naa jóge def lu ko neex loolu xamna naa ci ñew peut-être benen point bi moy autorisation yi nga xam ne ne war nañ koo mën permettre les citoyens ou bien les hommes politiques ci biir réew mi amatul surtout Macky Sall depuis mu annoncé ne qu'il ne sera plus candidat aux élections de 2024 lu bari di ko boucler di ko arrêté on l'a bloqué légui loolu mëno ko wax di wax démocratie ma sœur et je peux citer sur trois points. La position des syndicats sont intérêt. Demotul, quand le droit alimentaire de manifester est mis en cause. Demotul, tay la démocratie quand l'Assemblée nationale ne peut pas émettre euh, son avis. Ce n'est plus de la démocratie. quand, le droit constitutionnel pour un député d'amender un texte de loi est bafoué, demotul. Lolu yeb amatul ci démocratie.